mbokk julli ji mbokk taalibe yi ñu ngi fii ci Thiès di place de France ñu woote xew-xew bu rëy tey di 17 février suba di 18 ñu woote bés bu rëy bës boo xam ne coordination soppi Duudu Kenn ñoo koy woote muy seen premier édition fas yéene sargal Duudu Kenn Mbay ki ñuy sargal nag mooy kan mooy Duudu Kenn Mbay bu alxaaji Mbay doon na Mbay bu Sëriñ kër Si duudu kenn mbay mi nga xam ne wax naa ne keroog ci avant première ba 78 la ñu formé mouvement des jeunes Tidiane 78 la téye rajo fii ci som kër Baara Kanté 78 ba 2018 muy 40 ans njaboot ñoo xam ne biñ koy formé boobu judduwuñu yu juddu yàlla boole duudu kenn ñu ay góor ak jigéen mag ak ndaw ci Sénégal gépp ñoom yëg-yëg bu yaatu am mbég bu yaatu fas yéene sargal duudu kenn kii sargal mooy kenn kooku moo dund ak El Hadj Abdoul kookoo dund ak El Hadj borom daara ji kookoo dund ak Serigne Cheikh Ahmed Tidiane kookoo dund ki ñuy jooy noppeeku ñu muy Abdoul Aziz Al Amine duudu kat mi sargal kookoo jënd lépp taalibe kookoo jënd lépp daara kookoo jënd lépp kër Seydi xaaji Malick jënd lépp kër maam Sëñ Babacar duudu kat di koo xam ne nag di ku dal ku modeste ku xam boppam waaye ku woyof waaye ku yaatal ñu nekk fii nag ak ñi nga xam ne ñoom lañ ko bokkal suñu président ngi fi Pape ak ñoom na Mbodj ñi nga xam ne ñoom lañ ko bokkal ak soxna yi ak it nag waa Koskaas waa Axlu Suufa ak fédération daayira Tijaan bi Alaaji Pape Faye jiite ci turu mag ñi ñoo nekk nii di yëwee na tànt bi tey ci samedi ji suba di bës bi tey di avant première bi ñu fas yéene bu subaa ñu ngi tàll Sénégal gépp suñu loxo bëgg ñëpp fekk ko bu trois heures jotee ñëpp ñëpp waaj ànd ak dal ànd sel sell ànd ak laab ànd ak ñaan fas yéene ñaanal Doudou Kenn Mbaye nii ñu ko defee 2018 ñu defaat ko 40 ans ci dundam ci barke sëñ Babacar su ko defee ñu jox euh, Laasana Mbooj kàddu gi. waaw fa tabaarakallaa sëriñ euh, wax ji am na solo rafet na ñu ngi nuyu Sénégal yëpp à travers waa Thiès Info wax dëgg fa yàlla sant leen bu baax ci avant première bi nga xam xamante ni wër na àdduna yëpp parce que woo nañ ñu fépp ci monde bi wax ñu ci bis bi. loolu nak dañ ci sante yalla bu santiji sunyumak, baax sant suñu mag muy sama xarit di sama wulere di babakat Diallo nek ben responsable politique bu APR ci Thiès nek ci ginnaw Siré nek kennon nekkon kenn ci Serigne Mansour si wax deug fa yalla bis bi mën na ni japp na ci japp bo xamanteni wax deug fa yalla japp gi ci japp kenn xamul nu mu ba tay ji li mom moko waralat ñii ñëwaat fi tey pour couverture bi suba tamit mu am yeneen média yoo xamante ni dinañ ñëw ci bis bi te moom moo moo leen jël en charge kon loolu dina jaadu ñu biral ko ba monde bi yëpp yëg ko ba képp koo xamante ni war nga ko yënga yëg ko parce que nee na kat ki ñuy sargal moom moo ko waroon def parce que nekk naag jataay Serigne Mansour ci ci Serigne Mansour ak duuru kenn giiru Serigne Mansour liñ fi mu nekkee nekk ci xalif bi ah loolu nag bu fekkee moom def na ko tey mun naa ni boppam la koy defal waaye nag wax dëgg fa yàlla dañ koy sant gërëm ko parce que du ñu def lu sëñ Mansour waxoon rek mooy daa ko yayoo ku la def dara ku la defal mbir rek nga ne ko dama ko yayoo di sant tamit ñi nga xamante ni ñu ngi ciy jàpp ñëpp wala ñi nga xamante ni ah ñu ngi ciy yëngu wala ñu ngi ciy dox muy président bi di présidente bi di membre yi ciy dox yëpp ñëpp ñu sant leen sant tamit bu baax suñu président fédération muy Pape Ahmadou Faye parce que joxe na ay instruction ferme ci Thiès ci daayira bépp bu fi bépp daayira bu nekk ci cees pour nga jël bis bi mu nekk bis boo xamante ni bis bu rëy lay doon ci yow ak waa lu suufa yii Serigne Babou jiite ñu sant leen gërëm leen sant xaaj Doudou Kane ñaanal ko wër ak tal ak fekke bañ koy feeteel lii santa ans wasalaam. mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen baalu àq te di leen ko baal di ñaan yàlla yàlla yàlla defal jàmm. ah di am mbégte nag fii ñu taxaw nii muy soppee alxaaji Duut Kenn Mbay yëpp ñoo fi daje ngir waajal bis boo xamante ni suba la incha allah pour ñu sargal ci alxaaji Duut Kenn Mbay alxaaji Duut Kenn Mbay nag sargal bi dara taxawlu ko lu dul liggéey gi mu liggéey kër Seyd alxaaji Malick moo waral ñun ndaw yi ñu jóg taxaw ni dañ koy delloo njukkal kon képp kuy bëggee tarixa bi di bëggee kër Seyd alxaaji Malick wala ngay bëggee yenn abiyaat yi ci ci ci tarixa bi ñu ngi la ciy woo ngir alxaaj dut kenn mbay di sant comme ni ko laasana waxee rek xaaji ah, Babacar Diallo nga xam ne ku ko xam-xam ko ak sëriñ Mansour si borom daara ji lii moo ko waral jàpp na ci tey lii bu fi taxawee gannaaw moom la ah ak yeneen yoo xamante ni mi ngi koy def ngir ñun ah kon dañ koy ñaanal yàlla yàlla defal ko jàmm moo ñim bokkal li muy liggéey lépp ah di sant suñu jigéen yi nag taxaw jigéen ñu mën góor lañ la ko tàmbalee ci présidente ba li soxna Ndeye Pouy franchement parler tëddatuñu yendatuñu nelawatuñu moom moo ñim ko àndal ñëpp ci liggéey bi ah di gërëm nag waa Thiès surtout waa ahlu suufa ak waa koskaas ñu ngi leen di gërëm bu baax ndax lii bu amee tey ji yaatal gi ñoom la ndax ñun dëkkunu fi mais ñoom ñu fi dëkk yaatal nañ ñu ba tey mu mel ni ñun ñoo fi dëkk tey gis ngeen baas bi ni mu jekkee ni ku la ko baasal te laaju la dara ni la mbir maa ngi noonu ci laa bokk wax dëgg yàlla kon jar nañu sant leen ndax bu ñëpp defee ni ñoom ak Babacar Diallo bis bi jag di sant tamit gouverneur di sant tamit préfet bu Dakar ñu ngi koy sant bu baax a baax a baax a baax sous préfet ñu ngi koy sant bu baax a baax a baax wax dëgg yàlla jàpp na ci bis bi yàlla na yàlla defal ko jàmm defal ko sutura lii daal lañ amoon lu ñuy wax ah li ci des nag suba la lii lancement la film bi ñëwagul kon nag ñu xaar alxaaj dur mbay rek bu ñëwee ñu ànd ak moom bégee بأحمدين بالمحمود بالختم بالردا وبالمصطفى بالمنتهى البدري أه يالنا يالا دولي جام والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته واو السلام عليكم ورحمة الله آه، نيجلين نوي زيار دي نوي واشيد بي دي كونتانتين دي واخني سين ليغي يالنا باركة تي باركة يونان تي بي ndax li ngeen di waaw xanaa ñu mottali rek waaye daanaka ñu war a wax wax nañ lépp waaye nag ñi ngi woo euh, gouverneur bu Thiès ak El Hadj ak Seydou Anne bu pikin di leen wax nag bis bi dama naan du bisu alxaaji dut kenn mbay bisu xadara kër Cheikh Sidi Xaaji Malick la te yaakaar naa bis bi bu buñ ko defee sagu kër Seydi Xaaji Malick gépp la kon nag xëy na wax ji leen war a wax wax nañ ko waaye ñi ngi yëgal ñëpp di kontaan nag ci Babacar dama naan euh, yaa baax mënta weesu yaa baax waaye ku ko def du ko dégg te ku def dégg ku deful doo dégg dara te ko xam ni Babacar li mu def nii rëy na ci nun te defaluñu ko dama naan ko defaluñu ko defalu ko dut kenn xadara ka Seex Sidi Xaaji Malick la ko defal ko dama koy ñaanal yàlla lim euh, lim bëgg yàlla nag ko yàlla defal mu bëgg sëriñ Mansour nag di sagoo sëriñ Mansour boo ko waxee sëriñ Mansour alal ju mu am jox la ko moo waral lii mu indil ñu lii lii di mbégte ci ñun kon nak ñing koy yëgal wa gep di kontaan ci ñëpp di yëgal wa Sénégal gi yëpp bis bi na ñëpp bis bi alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh